ki mënul lool lépp ta sori moo tax ma lay jox li ilaa fi Quraysh saara nga boo xam dafa am bayre dafa am mi ngeen tudde caaj saaja saar bi baax lool 99 yi nga ëf ko ci ndox def ci parfum def ci ndoxu sam-sam ñaan ci yàlla borom kër di ko sangoo ba mu am juróomi fan par ngoon booy tëdd yàlla mën naa dogal nga am bayre lay gaay nopp la muy góor gi muy jigéen gi bari na nag waaye na sax loolu képp koo xam ne saxal ngeen di jàng kursi fukki yoon ginaaw takusaan fukki yoon ginaaw takusaan yàlla dana la may borom kër bu dee da nga ko bëgg wala bëgg wala bu dee jigéen ji daa bëgg borom kër wala bu dee góor daa bëgg jabar mais dafa am sax yeneen porte ouvert yu ci nekk ci biir fukki kursi waxoon naa leen ko fi yéen képp koo way saxal doo ñàkk assis da ngay am wërsëg da ngay am bayre nit ñi dañ lay bëgg te da ngay am sens yi ci ne daa bari fukki mbir ak juróom benn ñoo ci nekk mhm. koo saxal yàlla mën na ko muy soxna ay sëtu ah defe naa loolu war naa doy. Mm-hmm. ci côté boobu noonu. Mm-hmm. waaw kon ñaan borom kër moom mën naa nekk. Mm-hmm.